instant yi nii comme li ngeen wax ñun mënuñu mënuñu def li nga xamante ne moom mooy wàllum confinement total mais mu sànq li ma doon wax mooy wàllum confinement partiel comprendre nga confinement partiel boo xamante ne day ànd ak day ànd ak ay ay ay ay ay aide yoo xamante ne ni comme comme quartier bi nga xamante ne moom lañ moom lañ ciblé pour def ko aide yi nga xamante ne c'est destiné à la population mu jubal foofu direct léegi loolu comme que demee ba xamante ne mënul antu mais lan lañ war a renforcer dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg moom mooy sensibilisation bi parce que sénégalais yi loolu laa doon wax man loolu loolu moom moom instant yi moo war a nekk priorité parce que instant yi dem nañ ba nga xamante ne relevé nañ ay cas communautaire ñu dem ba toll ci 12 comprendre nga ni ñu fësalee li nga xamante ne ne moom mooy wàllum les mesures barrières moom mooy raxas loxo yeeg kanam yeeg genre yi ñuy wax noonu raxas loxo yi xam nga mesure distance yeeg genre yooyu noonu instant sénégalais boo fëgg mu wax la li nga xamante ne moom mooy moom mooy toutes les mesures barrières niñ ko ni ko sénégalais yi nandee ni ko sénégalais yi xamee mais nañu fay nañu fay acteur ak yi fi nekk jkatu sketch yi mais xaaral rek baaji bi non dama la wax dama la bëgg wax instant yi ni même bu ñu leen fayul déglul élage même même bu am na ñu bari ñoo xamante ne duñ déglu média loolu yow li lan moo leen gën a soxla nga ñëw nga ñëw di saafonte ak ñoom ci lañ ci gën a gis seen bopp que yow ngay ñu toog di ko déglu ay télé ay rajo loolu waaw même loolu yëpp loolu benn benn si mun na ci bokk mais man xam nga lan laa bëgg wax comme gars yi dañu maîtriser mesures barrières yi population bu nekk comprendre nga dem ba xam ba yëg ni ni yëg yëg ci boppam que ni ah feebar bii daal ku ko am daal isin ay déggum feebar la comme ñëpp rek dafa war a dem manifesté wu gars yóbbu ko hôpital comme ñu jàppee ko loo xamante ne ni ici ay déggulum la lii feebar la rek feebar buy wér la mais loolu noonu à travers communication lañ ko mën a defee mais loolu à travers des sensibilisation loolu moom lan la wax nag léegi aussi ah su mais est-ce que trop de problème y a trop de y a trop de manquement yi nga xamante ne fin day créer benn bombe yow déjà bu fekkente ni da ngay te un joueur d'échec da ngay gis na ni say tour yi dañ daanu maanaam sa premier sa sa zone sa couverture frontalière sa frontière baaxul te am comme dañuy dugg comme pas possible foofu baaxul léegi foofu bu baaxul si biir nu muy baaxee foo du fekkante ni dañuy dugg comme pas possible looy mën a sécuriser si biir parce que dañuy dugg yaa ngi dégg kii dafa feebar kii dafa feebar dugg na fu mu jaar fu mu jaar. xam na su suñu wax ni dafa monde bi la xam nga dafa mel ni dafa logique xam te instant yi lu nekk ni dañoo nekk danger bu extraordinaire moo tax instant yi ni amul milliardaire amul borom un franc amul borom jaaykatu gerte amul borom xam la bu ñu nee huit heures ñëpp a war a tëj seen buntu huit heures mais da ngay gis xam la borom yow day leen yow yow day leen yow ñun ñun duñu ay dof quoi leer ñu leer nañu ay borom yow déjà yaa ngi dégg yenn gars yi la démb Touba laa jóge da ngay dégg ay nit yu la koy wax nee la démb fii laa jóge yow mu leer na ni te problème mooy moitié ñu koy def yëpp ay borom alal lañ. xam nga cela veut dire ni xam li problème ñoom ñoo war a jël man lu may rek mooy lu may waxaat rek population bi li ñu war def billaahi def nañ ñoom ñoo ñu ameel te boobu mu loolu mooy ñëwaat ñoom ñoo war a maanaam ñoom ñu xam lu garaaw Macky Sall moo taxaw wax couvre-feu ainsi de suite kon loolu mesure bu ferme la ministre de l'Intérieur kenn waxul li Macky Sall moo taxaw wax ba mu waxee. kon loolu mesure bu ferme la kon ñoom loolu dañ ko maanaam dañ ko war a appliquer mu jaral leen lépp dañ ko war a appliquer mu jaral leen lépp. man dama xamul man nag gisuma loolu noonu quoi mooy. man li ma gis ñu ne président moo wax yëpp c'était en français pourtant ñun Sénégal lañ nekk quoi man li ma gis président wax yëpp ah c'est en français ba ci raxasu ay loxo tout en français le discours la c'est pour la France ou le Sénégal parce que ñun dañu ne suñu langue nationale wolof la quoi. mun soo ma làkkul wolof nga làkk ma puloo wala nga làkk ma bambara wala séeréer whatever mais tout se fait en français ñun dañu nekk si benn problème bi nga xamante ne Sénégal mooy ñu ñor mais pourquoi nga ñu làkk français. dama mës a di seetaan Cheikh Anta Diop campagne électorale Cheikh Anta xam nga muy soulever affaire yi muy muy muy muy muy joxoñ lii quoi campagne électorale ne gars yi di fi ñëw di leen campagne ñëpp ay français lañ leen di làkk mhm. xam nga ngeen di rek di yuuxu. mais bu ngeen xamoon li maanaam liñ leen di wax noonu ci français bu ñu leen ko làkkoon ci olof jet ngeen leen di jël fekk leen foofu noonu mais xam ci côté communication bi El doon wax léegi léegi si laay delluwaat quoi comprendre li mu la bëgg wax euh, comme li nga doon wax ne bu campagne électorale jotee gars yi dinañ fexe ba seen quartier ak affaire yooyu yëpp ma la ci wàllu cas communautaire yi man soo gisee sax affaire yi nu mu demee nu mu demee nii nekkul affaire de doomu borom alal wala doomu kii wala affaire yooyu noonu du du du côté boobu noonu sax quoi comprendre mais dafa am benn minorité boo xamante ne gars yi ñoom la ñuy gën a déglu maanaam ñoom ñoo am baat bi ñoom ñooy wax ñoom ñoo maîtriser médias yi ñoom ñoo xam fan la taxaw pour wax pour gars yi dégg la mm-hmm. ñooñu ay eh, bëriwuñu comprendre nga cest ñoom ñooy joxe beneen beneen image boo xamante ne bokkul ak réalité yi nga xam ne benn benn cercle de personnes la mm-hmm. comprendre nga lu bëgg wax mais nekkul loolu mooy refléter population sénégalaise bi carrément comprendre li la bëgg wax tey dafa am ñoo xamante ne ñoom ñoom ñoom la quoi comprendre benn benn benn minorité la boo xamante ne ñoom ñooy nekk fii di wax di coow xam nga wala di def yenn affaire yi xam nga comme ñun Sénégal dañ dañ tàmm loolu quoi comme man bambara la suñu jàppee benn bambara buy def lii rek ñu ne bambara yi maanaam ñun loolu loolu dafa bokk si suñu si suñu kii quoi comprendre la mais communication bi côté communication bi ngay wax noonu c'est côté communication bi comprendre la le fait que ministre bi chaque chaque jour mu ñëw xam nga nañu am nga cas bi tant de cas nga am tant cas contact xam nga cas communautaire temps xam nga mort temps xam nga guéri temps comprendre la mais guéri guéri guéri guéri guéri boobu noonu loolu man pour man danger bi foofu la nekk parce que man dam man si sama analyse bu gàtt de kaa ah, cas communautaire yëpp mooy lan ñan la pour man mooy ñii di jóge feneen di daw di dugg ci frontière yi te kenn du leen yëg mun nga jàpp 10 benn rëcc mooy li mu ne chaque fois benn boobu noonu moom mooy indi musiba bi mun nga koj gars yi si frontière bi jàpp 10. léegi nga doon wax pour gars yi bañ a guddee ren kaa géri ñu ne ñu ngi tane. non xam nga c'est que affaire yi booy. xam nga yow par exemple yow yow yeneen dëkk yëpp bu ñuy wax moor moor moor moor yow yeneen dëkk yëpp di wax moor moor moor moor ah. yow nga naan géri géri géri géri géri mais dañ naan Sénégal dañ naan dañ naan Sénégal gars yi dëkk boo dégg mu lay wax moor moor moor xanaa xamoon nombre de géri yi moom moo ëpp nombre de mais gars yi dañ lay wax ay nombre de moor yu bari waaw parce que ñoom loolu lañ am parce que ñoom loolu lañ am ba pare xam nga soog la wax guéri maanaam ñun soxlawuñu. son man je comprends xam nga comme la la yow ngay dégg fee moor moor moor ki ngay dégg guéri guéri yaa xam ne àjjana dégg même ci même ci la dafa am la moo tax gars yi boo amee boo amee feer bi ngay ragal parce que dañoo taxaw tiital la ci feer bi mais léegi bu kon kon la ngay def ci feer bi kon maanaam xam nga sànq xam nga sànq laay dafa wax benn affaire bu am solo dafa ne la moo tax en boo yegee feebar bi sa yaram sax doon na dem hôpital parce que da nga ko ragal parce que boo boo amee feebar gars dañu lay bani xam la léegi yow fekkee yow fekkee yow diggoo giri nga am feebar mais yow yow bani ba day gën a garaaw mais soo xam lay problème soo xam lay xam lay problème pour man pour man pour man xam xam lu muy problème koy dégg mais nga ne benn affaire am affaire bi moom tôt ou tard day métti cas communautaire tôt ou tard day métti nga buñ ko bàyyi mu continuer day métti xam amuñu mooy am nañ mooy loolu kenn weddiwu ko mais instant yi nii logique bi ñaari affaire mooy logique am ñett sax laay wax benn bi xam nga dinaa ñu ne feer bi am na am dara mën nga ko am sax mu wér te loolu def dara xam nga ñu ñaan yàlla ñu ñaan yàlla ñu bokk si ñooñu. déedéet ba ba ma yegg ba ma yegg ba ma yegg non non ba wéree xam ba ñu ñaan yàlla mu bokk si ñooñu deux deux wala yow say matuwaay nga koy jël chaque fois am la nga xamante ne même boo amee contact ak ñooñu sax. xam la fekk yow jël nga sa matuwaay léegi troisième chose bi muy lan loolu la bañ a dégg xam la muy confinement bi ba gars yi di bañ a dégg sénégalais yi bañ a dégg pour mu jógee fi réellement foog ñu def confinement ñu ko am ñëpp seen bët révélé wu ñu faj leen te loolu loolu maanaam loolu mooy réalité sinon tôt ou tard sinon tôt ou tard on va passer à ça. d'accord mais mënul nekk confinement moom wax dëgg yàlla confinement moom mënut a nekk. loolu lañ ko war a def confinement bi moom mënut a nekk. non mënut a nekk confinement mënoo def mënoo def moitié mënoo def mënoo def moitié moitié bouteille mënut a nekk. yow da nga am bouteille bu fees del wala wala wala wala dootoo amati bouteille. bouteille dégg nga waaw yow mën nga mën nga am bouteille boo xamante ne da nga def moitié bouteille soo ko à la fin yow dootoo xamati looy def. man li ma la wax ne moom mooy confinement total mënut a nekk Sénégal ñun ñun mënuñoo ñun mënuñoo les pays non déedéet pays les pays européens les pays européens eux ñoom mën nañ koo def moyen am nañ am nañ possibilité pour def ko mais tey jii mënuñ ñoo taxaw fii nii ñoom ñoom ay kii lañ am am nañ les moyens pour faire ça parce ñoom am nañ am nañ luñ bëgg xam nañ xam nañ luñ bëgg mais tey jii nii modèle boobu noonu Euh, n'est pas euh, ce qui est valable en Europe n'est pas valable ñun dañoo war a chercher suñu modèle boo xamante ne modèle confinement boo xamante ne dafa méngoog suñu jamono mais tey ji suñu amul modèle boo xamante ne suñu dafa méngoog suñu jamono suñu jéggaanee tamit luñ ci résultat bee bee ñee am moom lañu moom lañu mujj am rek daa tey euh, Sénégal ci boppam moom moo bindewu noonu les Sénégal ci boppam moom nit ñi nit ñu dundee moom moom moo nekkul benn leneen bés boo bés boo ko bëggee jël nga jël confinement benn nga bëgg ko appliquer Sénégal da nga soxla sa bopp rek ndax possibilité def parce que moom kese moom moom moom kese la mais jeex na de parce que ah, ñoom de même tudd ñoom ñoom ñoom problème ban la ñu région yi mais boo xoolee ka ka kii nu tudd importé yi presque jeex na xam la soo xoolee parce que parce que ñoom dañoo ne ñoom dañoo ñoom waa wax leer nee na date nee na ñoom date bi ñu amoon xam la ba tëj frontière yi xam la ak kii bu ñu may xam la soo xoolee bañ defee lépp kaa kaa importé yëpp jeex na comme am la kon léegi mooy région yi xam parce que waaw parce que parce que parce que des fois da gis ki am de dem si région bi du institut xam la mais loolu noonu yëpp mooy lu may waxaat rek xam la day ñëwaat foofu xam la parce que dafa am ñoo xamante ne dañ leen jox loo xamante ne dañoo foog ñun ñoo moom Sénégal dafa am ñoo xam ne dañ leen jox loo xamante ne ñoo moom Sénégal xam la ba nga xamante ne même problème bu amee sax ñoom duñu yëg ni problème am na parce que ñoom jàpp nañ ñoo moom Sénégal xam la mooy sànq boo yooyu noonu doon fecc si boîte yeeg institut non loolu yàgg na loolu dafa yàgg dafa yàgg ko dafa am li nga xamante ne même bu amee bu amee Sénégal ñëpp du ci ànd def xam na si temps bi instant yii. xam nga fan la waxee te xoolal loolu noonu comme ni mu demee. parce que da ngay xool comme sànq man am na benn histoire bu may déglu boo xamante dañ naan femme bi nga xamante ne moom moo décédé si affaire bi ba muy dem si auberge bi moom amul attestation comme gars parce que ku góor ki xaw ma naka Amar moom am na attestation am na ñeneen ñoo xamante ne am attestation mais gis nga nu mu def ba ba ba jugee si këram comprendre nga dem dem fekk ci ñooñu ñooñu foofu noonu c'est avec la complicité comprends nga da ngay dégg loolu da ngay dégg parce que information rek lañ ci am man nekk source bi am na benn benn benn chaîne bu buy daw YouTube boo xamante man fa laa ko déggee mais boo xoolee loolu noonu parce que loolu moom la loolu mooy gën a andi cas communautaire parce que loolu bu amee loolu bu amee kii déplacé wu fii dem ñu ne la dañoo war a tere rassemblement la moo tax ñu tëj baar yi tëj hôtel yi tëj lépp rassemblement la ñuy bañ mais des jeunes yoo xamante ni sénégalais la ñoom seen baay yor na xaalis il se croit il se croit tout permis comprendre nga nekk si ay endroit yoo xamante ni ñoom ñoo fay nekk lu fa lu ne dafa xej mais loolu comme li nga wax cas communautaire yi bu dee noonu la du jeex dama ci yokk ignorer la ah, loi yow da nga war a war a respecter a xam les États-Unis aux États-Unis ñu ci boppam aux États-Unis moom moom les les les riches dañu leen di daan daan yu métti dañu daan daan yu métti dañuy protéger les pauvres aux États-Unis mais tey jii nii au Sénégal contraire bi la yow da ngay am doolee da ngay am tuyaale am nga richesse am nga alal gars yi dañu lay bàyyi nga dem dañ naan laan yow borom barke nga mais tey jii nii yow ku amul dara moom dañ naan ah waaye kii de du nañ ko jub dóor ay kii dañ ko ngadd liif lañ ko kii affaire yooyu te loolu dafa doxut légalité ñun ci dëkk boo xamante ne quatre vingt pour cent ay religion musulmane moom la ñuy kii léegi ba léegi dafa am loo xamante ne lu nekk yow da ngay war tënku ci moralité wala culture boo xamante ne mu ngi sa dëkk pour nga mun a soqaliku soo buggee nga jël euh, borom barke nga bàyyi leen ñu am am liberté boo xamante liberté nage boo xamante ne ne surtout seen seen yenn doom yi boobaa day poser problème état doit être ferme avec les riches et mu mu jàppale pauvres yi pour ñu mën a évoluer loolu rek la pour, pour, pour, pour, fermer cette parenthèse, je dirais que force revient toujours à la population. ci comprends yow yaa fal yow yaa jël say njiit na ñii nga wóolu mais ñooñu nga wóolu bul xaar il faut que ngay exiger li nga bëgg amul ay xaar ba élection lii nga bëgg lii nga bëgg maanaam muy États-Unis muy beneen pays boo jël suñu waxee corona da ngay jël exemple États-Unis mais le président américain bu mu defee toj-toj congrès daf ko sanctionné mais lan ñun lan la ñuy def. yàlla baax na yàlla bu mu baaxee lu tey de balaa muy sàkk nit la baax dañ xam lu ñu bëgg nag incha allah waaw Baba Djibi loo bëggoon wax yow. man laay waxee man. Mhm. mooy damay delluwaat rek si confinement total bi ñu doon wax ak problème yi ni ñuy kii maanaam dalay gën a wan ne tamit confinement total bi mënul nekk comprendre nga gis nga tey am na ñoo xamante ne mooy comme ni ma ko doon waxee rek si commencement bi am na ñoo xamante ne amuñu fu ñu nekk amuñu fu ñu dëkk dëkkuñu fenn ci marché la ñuy fanaan fi ci ci mbedd mi la ñuy fanaan ñooñu foog ngeen bàyyi leen benn beneen aspect bi mooy am na ñoo xamante ne gis leen ñu nekk say appartement yu luxe gis leen noonu rek nekk say appartement yu luxe je te parle en connaissance de cause xam nga bu ñu añee du ñu reer comprendre la bëgg wax léegi tamit beneen affaire dafa amaat mooy li ma la waxaatoon léegi léegi tamit ne la dafa am cinq personne yoo xamante ne dix personnes ñoom te ñoom ñoo nekk ci média yi di wax di wax di bëri wax comprendre li la bëgg wax mais gars yi bëri wuñu xam nga exemple bi ma lay jox xam nga mooy lan Médina benn benn benn quartier barak moo lakk Médina incendie bi amoon Médina ay ndongo daara yoo xamante ne ñoom fa lañ dëkkoon am si ay nongo daara yu si ñàkk seen bakkan automatiquement Sénégal yëpp yëg nañ ko coow li di riir fu nekk xam nga daara alxuraan bu nekk feenee waaw sëriñ daara yi dañ leen war a def nii dañoo jeng benn benn benn ndongo daara non ja borom ndongo daara bi dañ ko war a sëriñ bi waaw jeng ku jeng sama doom nii nii nii nii xam nga loolu ngay dégg fii nii chaque jour xam nga li ma la car rapide yi dañ leen war a génnee si dëkk bi parce que gars yi duñ ko duñ ci yëg te boo génnee quatre-vingt-dix pour cent choc yi ngay gisee particulier yi la xam nga loolu mooy loolu léegi nag léegi tëju leen seen kër baadoole yi tëju leen seen kër doomu borom alal yi génn def leen neex ba ci problème bi ba ci problème bi xam la moom gën tegu ko fenn kenn rafetlu li policier bi def mais moo si gën a néew doole moo tax turam ngay gën a dégg. loolu am na. loolu kenn wax xam nga xam nga loolu dafa am ñoo xamante ne xam la seen doole la ñuy jaayante xam la maam maam maam dañu leen jox privilège. booy Medina rek yaa ngi dégg booy Medina dañu leen jox privilège xool xool même yaay laa même yaay laa même yaay de même yaay yaay sax affaire bi nanguwuñu si sori kenn du si sori. te problème mooy ñëpp xam nañ ne lii maanaam da de dèjà ñoom li ñu def dafa garaaw nit ki di waaye de ñoom ñëpp ñu daw baxu et puis et xam nga moo gën a garaaw non eh, même même même tout non non non mais non ma eh mais non assistance sax garaaw mais ñoom bañ dee fa lañ jëm ak heure boobu ban heure jot euh, waaw ñenn ñi mais ñeneen ñi ñeneen ñi laa lan lañ def ba dem kon dañu leen escorté woon dañuy ñëw. ah policier bi moo leen escorté wala policier wala wala policier boobu ñu wax noonu policier boobu yaakaar naa benn escorte rek la def mooy gel boobu moo ale bi rek gel boobu moo ñëw te dee moo naa xam la mais ba wala ñun ñëpp am attestation boobu ba taxi regroupé nañu yow mënoo mënoo ko xam léegi nag benn affaire moo tax ma may wax am mais mais mais denrée alimentaire yi la mooy njëriñam quoi somme bu mu jël ne dafa lànk somme bu mu jël ne da koy dugal si affaire du dund affaire yi maanaam lan mooy njëriñam. amoon na moo njëkk a nekk koy séddale. déedéet. mais ni ñuy def politiciens yi ni balaa ngaa séddale mais eh, balaa ngaa séddale. man loolu laa doon wax El Hadj Deme. est-ce que instant bii nii ñu soxla nañ loolu instant bi daara alimentaire est-ce que non xam nga lu tax xam nga moo tax la kii instant bii nii gars ñu ngi liggéey quoi mhm. ñu ngi xëy ñu ngi wàcc du ñëpp de. waaw du ñëpp d' accord nañ. voilà seen liggéey dañoo taxaw de. mais est ce que yow affaire yi déglu ma wax la de déglu ma expliqué la cas communautaire yi ñuy dégg. Mhm. affaire yi dina gën a garaw affaire dafa nar a gën a garaaw. Mhm. parce que affaire bi bombe à retardement la su fekkente ne yow li nga jël yëpp xëpp nga ko ci instant bi gaa ngi koy taxale quoi gaa ngi koy taxale est ce est ce que priorité bi actuellement actuellement nii nii nii séddale affaire la quoi. bi ñu doon wax noonu noonu noonu sànq si affaire de a renforcer xaalis lay jar. daara alimentaire boobu xaalis lay jar. comprendre nga parce que mille milliards xam nga man nan laa ko jàngatee. booy mille milliards yi booy ñun si am na benn chaîne buy tegaat théâtre Gelwaar am na lu ñu bëgg jàngal quoi peut-être ñun ñoo mënul comprendre. Mm-hmm. système séddale denrée alimentaire yàgg na fi ko te am na lu ko tax a jóg loolu mooy coobal nga noppi. même campagne électorale bu bëggee nga voté lim leen di wax ni lim leen di wax ni ñun nii yëpp dañ yàgg de dañ koy dañ ñu koy sax tooñee ventre plein ñun yow dañ ñu koy yàgg naxe comprendre campagne électorale gars yi indi la sàmm waaw loolu lañ maanaam bu nañ ko déguiser déguiser nice nice maanaam instant bii nii maanaam cóol li mu cóol maanaam côté yi gën a cóol du ko du cóol kenn ku ne ni ki coronavirus ba mu ñëwee ba léegi coobuñu wala famille bi ñu ngi so ñu ngi sonn parce que coobuñu doxalo ñun mun na am na de am na de mais social living bi bul fàttaloo Sénégal dafa social living bi daf fiy daw bu baax a baax a baax a baax comme lan la xalif général des mourides dégg ngeen déclaration bi mu def xam nga ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax a baax xam nga li ma bu baax parce que li mu wax loolu tamit xam nga kenn mënu ko dindi te loolu mooy solution bi ku nekk ñun entre ñun mooy comme li ma la rek affaire de communication la comme instant bi dafa cóol te dafa dafa actuellement xam nga amuñu moyen yoo xamante ne war nañ mën a gérer affaire bii xam nga communication bi bu jàllee normal ku nekk day volontaire mooy comme démb li ma doon expliqué si xam nga discours Thomas Sankara lu mu doon def école nga soxla d'accord dinaa la fournir matériel yuy tabax école dinaa la yóbbul benn ingénieur boo xamante ne xam na na lañ koy tabaxee mais yéen yéen a ko bëgg yéen waa population bi génn leen ngeen tabaxal ko seen bopp comprendre maanaam communication bi dafa war a dem ci sens boobu noonu quoi comprendre la mais ay affaire la toogal sa kër bul génn naa la indil ceeb naa la indil suukar naa la indil duulin cest loolu moo taxawul quoi. loolu maanaam ndimbal la quoi di nga naan comme ça ndimbal la et sax aide bi nii man man sa à dire que man dama fay sama TVA yow nga fay sa TVA. voilà loolu loolu laay loolu la foofu laay foofu laay ñëw xam nga su suñu xaalis la yaw suñu si si biir xaalis bi yow nga ne yow nga ne. waa dinaa leen dimbale de dimbale dinaa leen dimbale de ñëpp naa leen dimbale waaye daal ñii daal laay gën a dimbale mais ñee du ma leen dimbale est-ce que ñee dinañ la pardonné yow yow li nga jël dimbalee ko ñee loolu lay problème bi c'est c'est comme que xaalis yu ñëpp la yow da waroon jël xaalis bi yëpp nga jël ko séddale ko ñëpp ñoom ñëpp ñu am yem ci mais tey jii nii lu gars yi da lu waay gars yi wax les économistes lu ñu wax dëgg la su wàññi woon ceeb bi wàññi woon diwlin bi wàññi woon euh, nu mu tëddee pat pat d'arachide bi ba euh, ceeb comme que doo doon jar ay vingt mille saab bi day jar vingt mille mu jar ay douze mille wala ay quinze mille ay kilo kilo ceeb wàññi nga wàññi ko su boobaa voilà comme da ngay may rek su boobaa voilà su boobaa ñu ñëpp ñëpp dañ ciy jot kenn du am du am xajji du am seen mais tey jii comme que yow yow déjà yow da ngay choisir maanaam élection municipale yow say yow say nit ñoo xamante ne ne ñoom ñoom ay maire lañ ñoom seen mandat jeex na nga renouveler mandat bi léegi nag mooy comme que noonu la nan laay xalaatee waa ñii nii su ma leen joxee ay ay ceeb ak ay diwlin ñu distribuer ko seen seen masse électorale bi ñoom ëllëg mun nañ am euh, ay ay kii euh, su élection bi commencé ñoom dinañ mën a am seen i euh, dinañ leen mën a falaat mais su ko defee man ma gën a mën a gouverner conseil boobu noonu tey jii nii tollatuñ ci wàllum ay calcul politique. su wàññi woon ceeb bi wala wàññi woon diwlin bi ba nii lii yëpp du fi am mais xam ne Sénégal problème bi mu may soo ñëwee ci kër nga ne da ngay da ngay sa da euh, calculer ñan ñan ñoom ñoo nekk fii nii waa ji danaa naa waaw waaw yow kii yow loo soxla maanaam ñu ngi ci dëkk bi wala ñu ngi ci maison bi wala keneen ak keneen mu ngi ci maison bi te moom ñooñu dañoo waroon bokk ci sens ci kii bi ci compte bi mais ñoom ñoom duñ leen duñ leen comptabiliser te loolu dafa poser problème Sénégal ci boppam moom moom moo bindee noonu loolu rek la. man je parle man je suis parfaitement d'accord d'une part d'une part je suis ba damay xaw a d'accord ak El wax de dama koy limiter parce xam na moo tax séddale bi bu doon comme par exemple instant nekk ñu si période crise comprendre nga Euh, gouvernement bi jékki-jékki rek jël décision ne moom day accompagner li nga xamante ne moom mooy population bi ci wàllum denrée alimentaire donc dans ce moyen bi nga xamante ne ne moom moo gën a pertinent pour ñu séddale affaire yi donc noonu la da ngay ñëw 15000 ceeb bi doon jar 20000 nga jaayee ko mil nga xamante ne ni jënd ko génnee ko jënd ko sa poos génnee ko jënd ko sa poos donc day fekk ni day yomb mais comme li ma doon wax instant yi ñu toll nii période yi ñu toll nii dañ nekk ci période de crise période de am na ñoo xamante ne ni comme loolu nga doon wax ne dañ koy am sax pour jënd saaku ceeb bu 12000 amuñu ko nag xëyatuñu. mais social living bi mooy li ma rek. discours social living social living affaire de mentalité la a nekkul ñëpp a. social non mais sénégalais yi noonu la ñuy dundee. déedéet du ñëpp non 90 pour cent population. moom la dundee xam nga famille bu xaaral déglu ma yeggale ngir yàlla. comme li wax social living boobu noonu ngay wax. Mm. comme am na ñoo xamante ni isien déggum la parce que sénégalais ak a bëri loolu sénégalais moo bëri ñoo xamante ne ni ma tey Moussa joxaat ma suba suba gannaaw suba bu ma naree joxaat damay bañ tax ndax damay jàpp lii sax bu jeexee dina ma yàpp comprendre nga loolu tamit question de question de xel la parce que sénégalais noonu la mel Moussa mën na ma ko jox benn yoon jox ma ko ñaari yoon suba mu xëy di ma ko xoolee man mii en mais aide bi administration ma gouvernement moo ñu ko jox comprendre warta doon aide sax maanaam dama lay accompagner dama lay gunge dama lay gunge ci état d'urgence bi bi jeexee trois sa bopp mais tey jii nii yow da ne dama lay dama lay aider maanaam dama lay dimbale yow soo may dimbale tey nga dimbale ma gannaaw suba soo ma laajee sama vote dama la koy jox kat ndaxte yow damay xam ne yow yaa yaa yaa ne yow yaa ne mm-hmm. nekkul moom moo ko liggéey teg ko fi yow ku nekk xaalisam la man sama xaalis si la bokk donc loolu nekkul dañ ma ko may sama man maa ko liggéey ah. ñu ma koy dagg ñu mm-hmm. delloo ma ko mm-hmm. comprendre nga lu ñu ma delloo nag du kenn du si wàññaar sama loxo ndax man maa ko moom Mhm. suba élection bu amee ku ma bëgg a dama koy votel ça rien à voir parce que instant si période de crise lañ nekk moo tax ma ne la yow li nga wax yow da parler dans le cadre boo xamante ne instant a dafa dafa xamante ne ñoom nga am na ñoo xamante ne instant yii nii ñu toll pour ñu am lu ñu lekk sax problème comme social living boobu noonu baa di wax ñoom loolu ñuy dundee mais nag am na ñoo xamante ni munul loolu munul continuer si ñoom soo ma dimbalee benn yoon dimbale ma ñaari yoon dimbale ma ñett ñetteel yoon du ma ko nangu ndax maa ngi jàpp ni kii daf ma ko xoole waaye aide bii nag man moo ne xam nga la mooy problème du continuer de mais dina dina crise bi mu jeex nit ñi continuer nekk seen activité moom xam nga man la période de crise bi mënut a jeex ndaxte ndaxte moment pic bi ci boppam les médecins ñoom ñoom d'accord guñ sax ci moment pic bi maanaam fu ñu amee ay ay bu gën a garaaw boo xamante ne Sénégal am na ko moment pic boobu amagul nga commencé di distribuer moment pic boobu bés bu ñëwee yow lay distribuer loolu ma loolu laa la wax ba pare nee naa la yow li ngay wax ni dëgg la de Ablaye li ngay wax ni dëgg la mais adduna sax laay wax wax du ma wax Sénégal kese noonu la mës a doxee même bu jàmm amee dina am ñoo xam te ne am lekk ba desal di tuur am na am ñoo amuñu dara luñ lekk comme la loolu dafa am dafa am te képp koo gis muy daw si mbedd bi di sonn ki mu bàyyi kër ga moo tax comprendre ma ma revenir aat ci discours xalif général des mourides la bëgg war a orienté yow avant lii di am avant ñuy am problème fii nii avant ñuy am problème élection du am dara du am ay tabaski mooy am nga gis gars yi fii di comme keroog ni ñu ni ñu joxoñee sax ni ñu joxoñee maire Grand Yoff bi nii comprendre la dañ ko joxoñ ne ko comprendre boobu ba léegi deful dara ba mu ba ñu gis mu commencé def ay affaire yu ndaw donte loolu dafa tuuti trop par rapport ak li ñuy xaar ah mais moom côté maire bi si boppam am na beneen gaan bu nekk fii xaar yàlla bu ñuy woowee Adama Adama Faye la ma Adama ah? Faye la di dugg si kër yi di séddale ay saaku ceeb di may ay xaru tabaski comprendre la te moment boobu amuñu benn problème instant bi ñu ngi am problème ana loolu. xam nañ cause bi. Hmm? période yooyu xamoon nañ cause bi. waaw moo tax ma ne léegi nag période. du woon problème de mais cause la woon dafa amoon cause bu teg woon moom mooy dafa tombé woon ak ay campagne ñëpp xam ne moom nëbbu ko woon. comprendre nga gars yi xam nañ ne moom sa sa affaire yooyu noonu la doon campagne comprendre mais période bii nii bokku la lu lu ay campagne lii nii instant dañoo toll foo xamante ne période crise man loolu laa la a wax am na ñoo xamante ne ni fii situation yi ñu toll comme li nga wax am na ñoo xamante ne ni ñoom liggéeyuñu defuñu dara gis nga aide boobu noonu instant dañ koy xaar liggéey bi ñu defuñu dara moom moo tax moom moo exemple moo la affaire moo la maanaam effet maanaam effet bu gën a ndaw si Abdoulaye li muy wax xam nga tey ñu ngi naan bus yi waratuñu jógee Dakar dem Casamance xam la léegi bu fekkee chauffeur bus nga Dakar Casamance nga doon daw xam nga kon liggéeyatoo yow na ñoo xam ne suñu xëyee la ñuy def ko am taw te ñooñu ay même tudde te ñooñu duñu benn nit de waxuma Dakar quoi la da ngay calculer kuy dem Ziguinchor wala kuy dem Louga kuy dem Diourbel garage day fees quoi garage boo dem ne da nga gis day fees léegi kat léegi cela veut dire yow cela ah, ah nu mu tudd cela euh, euh, veut dire yow ñoo ñëpp liggéey ñooñu compter ñaata lañ. saa xam laa lay xam la dëgg la quoi benn affaire nga nga nga nga benn affaire am nga élémentaire xam la bu ñëwee même bu dee benn 15 jours sax wala benn 20 jours mu lay téye xam la da nga koy téye. kenn waxul ne. parce que te problème mooy li ngeen wax noonu tey li ngeen wax nii tey li ngeen wax nii tey li ngeen wax nii tey li ngeen wax nii ba am yëgal bàyyi ba am yëgal tey li ngeen wax nii li ngeen wax nii ah barki yàlla da ngeen di guddeel jël rek loolu la ñuy wax xam nga loolu la ñu ko wax de distribué ko ñëpp am bu ñëpp amee ba pare ñu def confinement total li ngeen di bañ mais di man man man fenn laa àndul quoi ñii am ñee bañ a am man loolu laa àndul mais problème mooy affaire yi c'est que xam nga problème c'est que Macky Sall Macky Sall nag pour ñu wax dëgg dafa war a bàyyi di ñuy def ci ay jeu de mots ay trans ay bàyyam tuuti même tuuti ay trans social ak xam la xam nga ay waa gox bee ñooy am ak maanaam mu ñuy làq lu ñu dégg ko ñun ñoo gars yi population bi tam benn affaire quoi chaque jour mooy lan ñu leen ñu leen di nax si ay mots si ay mots yoo xamante ne ay mots juridiques yoo xamante ne xam la duñu xam valeur bi xam la parce que tamit lii yëpp coow lii moom moo ko indi ah, parce que tey bu taxawoon ne ñii ñooy am ak ñii ak ñii mais mais ak kii doo yeeg ndox yi la non trans social ñii naan la non di nga am ñi taxaw la nga kii wax la lii kii wax la lee kii wax la te li ñuy wax yëpp du bokk te da ngay xam ni seen chef seen leader suñu président ñu ñëpp moo ko wax te ñun ñu bëri ñun comprendre duñu ko il est temps tamit xam nga jeu de mots yooyu noonu ñuy leeral nañu carrément affaire bi pour ñëpp la wala pour ñii la wala pour ñii la wala pour lii la xam nga muy bu leeree. muy bu leeree yii du am. Oh, mu ne ma mu ne ma kii mu ne dafa dafa dégg ay ndimbal ci chef ci chef de quartier bi quoi mu dem ci chef de quartier bi eh, di laaj ndax ndax moom bokk na ci ndimbal wala bokk ci ndimbal bi. chef de quartier bi ne ko yow de yow de bokkoo ci ndimbal bi mu ne mu dem ci kër gi ba mu demee ci kër gi mu wax ko yaayam yaayam ma ko ah xam naa ne dafa dafa xencu suñu suñu ginaar yeeg suñu suñu kii yeeg suñu ceeb suñu ceeb yu neex yu ñuy kii moom moo tax moom moo tax bokk bokkoon ci ndimbal mais xamoon na ne duñ duñ togg duñ dañoo dañ doon sàkkatu rek mu dinañu jox ci kii bi ndimbal bi loolu la cest à Sénégal ci boppam société bi ci boppam moom moo moom moo demee noonu am na yenn yoo xamante ne paramètres yoo xamante ne balaa ngay def dara danga koy sorale soo ko soraalewul rek da ngay poser problème Sénégal ci boppam dañuy ñaan coronavirus bi jóge fi mais tamit dafa am yenn yoo xamante ne ne dafa war a bokk ci dafa a bokk ci maanaam ci sensibilisation ci maanaam ci communication su état bi communiquer bien affaire dina fi jóge mais su communiquer mal du fi jóge loolu mais dañuy ñaan yàlla mu joge fi loolu rek lañuy ñuy ñaan yàlla amul dara lañu du ma du ma bett parce que depuis 2012 ba léegi même système communication ngay gis quoi bettu moo quoi depuis 2012 ba léegi léegi nag booy seetlu communication bi quand set quand lay changé ba élection yi di ñëw simplement léegi ñun dañu jàpp dañu jàpp sénégalais sur juste ko bu élection yi ñëw rek ngay ngay sentir ne yow sénégalais nga état d'esprit boobu noonu moo war a génn ci population bi affaire bi ay du question sama carte sama carte sama carte ñu rey la pendant cinq ans déedéet yow yaay xam li nga bëgg tu comprends président bu ñëwee nee la lii ah lii wax la français yow français da nga ko xam fii da jël ay étudiants yu nekk licence pour ñu defal la benn sujet verbe complémentaire c'est tout un problème te xoolal la dernière fois je suivais un truc benn boy bu nekk euh, de 1960 euh, il faut que faisait quoi CM1 e? ak ah, benn euh, maîtrisard mais non de dama j'ai mais xale bi lu mu lay làkkal de 1961 c'est moi je sais pas lu mu lay làkkal tubaab bi ba pare dugg dans dans dans un thème de polygamie di toj defal la thèse antithèse defal indi la synthèse kii mënul la indi la sujet verbe complément te maîtrise la def master am na master laa la wax de léegi nga ñëw di ñu wax français boo xamante ñu ñu nàmpuñu ko mais dañu am crise dañu national ana français bi ñuy làkk daf ñu jàppale. yëguñu ko mais tamit aussi benn instant li ma dégg si par rapport li ngeen doon wax sàmm sur les aides et autres là mais bu leen fa bu leen foog ne ñun su 1000 milliards yooyu mooy suñu las sukkul de dëkk bi am na xaalis de 1000 milliards du suñu las sukkul de depuis bu ñuy Sénégal ba léegi da nga léegi da ma bëgg wax ñun depuis ñuy Sénégal ba léegi 1000 milliards rek lañ am ñun moom lañ kaaw quoi waaye yow tamit dañuy jaay ñun dañuy produit phosphate am nañ or am nañ géej am nañ yow tamit. nañ dawal mayeen waaye ax ah, lu ñu am léegi léegi nga bëgg ñu wax ñun ñun benn mille milliards lañ gaaw non cest fii corona mooy li ma la waxoon laa dernière fois nañ ñaan yàlla mu gaaw jeex mais bu fekkente ni dafa daw fii ba deux mille vingt et un whatever non dañuy préparer c'est-à-dire kenn bëggu ko mais li ma lay wax dafa am kenn bëggul lii d'accord mais da ngay dawal mayeen nag bu au cas où bu amee yaa ngi lu may tëjee rek comme par exemple sànq boo leen déggee li nga xamante ne moom mooy sama biir wax bon j'ai été clair wàllum li nga xamante ne ni man dama koy damay préciser ci wàllum stigmatisation feebar bi parce que sénégalais yi foog ñu comprendre loolu noonu feebar bi doonul loo xamante ne ni danga koy am rek force force force da ngay dee ba tax na ni yow boo ko amee ñi nga dëkkal ñëpp di daw xam nga di daw kër gi di daw affaire yooyu noonu loolu moom mooy tax nit ñi nga xamante ne dañuy am feebar bi duñu nangoo sax dem hôpital comprendre nga raison pour laquelle loolu moom mooy approfondir moom mooy yokk li nga xamante ne moom mooy cas communautaire bi raison pour laquelle gis nga ñi nga xamante ñoom ñoo ñu jiite ñoom ñoo wàllu ñoom ñoo war a renforcer li nga xamante ne seen communication seen sensibilisation ci feebar bi di ko jouer ay théâtre waaye yow yow da am feebar bi ah lii amul benn problème da dem hôpital xam nga genre yooyu noonu di ko jouer ay théâtre a dem hôpital da nga koy di ko wàlle keneen di ko am di ko nëbbatu di ko nëbbatu du du mujj fenn boobu mooy premier deuxièmement bi moom mooy ku bañ a am feebar bi bul wóolu kenn jàppal na ñëpp dañoo am feebar bi comprendre jàpp ñëpp dañoo am feebar bi loolu moom mooy lan moom mooy ngay respecter li nga xamante ne moom mooy les mesures barrières di raxas sa loxo bàyyi nuyoo gi bàyyi toog dem foo xamante ne mbooloo dafa bëri comprend nga bàyyi saafonte bi bàyyi yooyu yëpp yi nga xamante ne parce que loolu waa kër docteur ñoom ñoo ko càmbar jox ñu ko pour li nga xamante ne ni moom moo ñu war a muccal moo ñu war a aar ci feebar loolu laa xamante ne ni moo doonoon na lu ma siy dolli daal. ñu gërëm ñëpp xam nga ñu ngi dégg critiques yi comme quoi que ñu ngi déglu encouragement yi xam nga ñu ngi bàyyi xel si bu baax a baax xam nga euh, di leen wax rek xam nga ngeen dem euh, abonné ñu si suñu chaîne clic bi comprenez euh, si laa bokk la yéen ñëpp ci ngeen bokk asalaamaaleykum wa rahmatullah